Euh, nit dof ak euh, Aliou Sow bu Walfadjri seen coow ba amoon fële ca Ndoumbélane aljuma bi ñu génn ànd ak Moutou parce que je savais où je partais chez les blancs mais xaw ma woon lan laa fay fekk sama bàjjan yar ma bis jot nday ji jur ne yow sa rakk dama leen di indi France parce que xëy na mun ngeen am chance fii doon fonctionnaire à l'éducation nationale en France on a fait le collège on a fait le lycée on a fait la série B on est passé à la Sorbonne à Paris 1, à Tolbiac. Après, on a été à l'école de notaire de Lyon. On a fait du droit patrimonial. On a fait gestion de patrimoine à l'UT de Grenoble. On parle pas de vous. Ñun si réew mi lañ bëgg a wax bu ñu problème réew mi parce que problème réew mi si non problème euh, booy tu vas à Sorbonne ak ay Dordogne waxuñu ci réewu Sénégal problème Sénégalais on est venu hey moi je suis déplacé pour ñëw mu mooy wax ay soxlaa nañu wax ci suñu ñuy développé ci réew mi ci ci arrestation yi wala ci problème Ousmane Sonko wala ci DGE wala ci yeneen si yooyu la ñëw mais ki kii kii arrête avec son lui il aime trop faire son cinéma plateau bu mu def il commence à faire son loolu ça l'impression que yow rek la impressionné nee na il faut qu'il arrête mais dafa am lu muy lu muy expliquer ah non sa personne sa personne sa personne moi moi wax ñu ci problème réew mi moo tax ñu wax ci man d'accord moo tax ñu wax ci man ba ne ma dama ma ne ma dama malhonnête c'est vrai ba ne ma je suis de mauvaise foi si ab sujet la ñuy wax ñëwal ci sujet boobu nga wax comme nag dañu wax ci man dañuy wax ci man man man je suis je vais je vais dinaa ko wax de dinaa ko wax du nee nañ dama am xam ñi ma ñi may xas ne dama maloon rek ñoo ne dama am xam au moins sax foofu remercier naa ko waaye sama xam nag man du ko saax-saaxee ndax j'essaie d'ouvrir les yeux hmm. ubbi sama bët xool ku si nekk lan ngay def ci réew mi merci beaucoup am naa tuuti lu ma mën nag ci àdduna xëy na nag peut-être je suis de mauvaise foi c'est bien mais comme am naa xam-xam xam-xam rek baax na parce que ki nga xam ne moo leen naan da nga mauvaise foi ki nga xam ne moom naan la yow yow yow yow tekkiwoo dara kooku moo leen ne moom dafa am xam-xam moo sa xam-xam xam-xam ragal yàlla moo ko jiitu ak honnêteté euh, xam-xam te euh, amoo honnêteté ça ne sert à rien tout je xam nga lu tax ne ayca jërëjëf euh, Modou Diouf alaaji dégg nga coow li li ko indi euh, nit ku toog di def ay éloges ci boppam du moment où ñu ngi wax ne ay milliers de jeunes ñu ngi bët gaal yi di dem te boo si seetee ñu bëri sax am nañ ay diplômes yoo xamante ne nii peut-être fu ñu taxawoon tey wane ko daanaka euh, ak moom li mu wane ba nit dof di ko jéem a recadrer waat loolu ban gis-gis nga si am. <coughs> waa xam nga Aliou Euh, dama ko dama ko yërëm. Hmm. <coughs> waaw parce que pour yow nga jox ko importance moom yëgut nii li muy wax parents yi am na importance mais daf lay bëgg a wan ne la jaar naa ci bërëb yu am importance pour yow léegi dootoo déglooti waa ji li muy wax. mais da nga naan kon waa ji li muy wax am na importance ndax jaar na ci bërëb yu am importance. Hmm. jaar ci bërëb yu am importance nag taxut a am importance euh, te it réew moo xam ni dañ ne plat bi nga xam ni mooy plat national bi mooy ceebu jën nit ñi di góor góorlu nan lañ war a defee ceebu jën bi mu normal nga di ñuy wax ay plat yeneen réew ak yooyu di wane sax mën a togg day des parce que nit dof da ko woo ci lii nga xam ni moom lañ bokk muy ceeb bi mm-hmm. ne ko waxal ci lii complexe est-ce que yéen du complexe tamit. <laughs> waaw mais xam nga Aliou Sow nag. Euh, dafa dox ci bopp xamal boo gisee ay mbiram di naqari patriote yu bari maanaam dafa ñëw jaar ci ñoom. Hmm. ñoo ko yëkkati euh, ñoo ko yëkkati ba mu tollu fenn fi hmm. jekki-jekki mu dévier maanaam Aliou Sow dafa escalier la leen def maanaam jaar ci ñoom xam nga Sénégal moom. ñu bari mën nañoo ndax sénégalais yu bari parce que boo ñëwee rek am na discours yoo xam ne boo ko amee man am na ay nit ñoo xam ne dañ ma daan wax fii ne ma saa seen télé boobu ñu ngi nuyu Aliou Sow vraiment jàmbaar la ku bëgg réew mi la. ay sénégalais yàgg nañ ma ko wax. Mm-hmm. di wax ne vraiment Aliou Sow rek laay déglu Aliou Sow rek laay lool parce que ñooñu dañu gisoon seen bopp ci Aliou Sow discours yi nga xamante ne bii amoon na ko. léegi Aliou Sow moom dafa mel ni moom ñaari Aliou Sow quoi maanaam dafa mel ni <laughs> dafa jékki-jékki soppeeku soppeeku bu extraordinaire. loolu moo tax loolu moo tax mu mere ñu bari mere ko. Mm-hmm. moo tax ñu bari jëlal ko li nga xam ni moyenne c'est parce que dañoo gis ni après dafa jékki-jékki euh, kii. nit ñi dañu jàpp ni dafa mën a. mais di wax ci problème mu réew mi ak situation dëkk bi fu mu toll. jaar na tamit ngay toog di wax ne man. jaar na waaw nee naa la wax boppam boobu. maanaam loolu mooy tax mu ne maanaam Aliou Sow maanaam dafa jombale boppam man dama ko déggee maanaam nit ku jombale boppam fi nga jaar parce que soxlawut ngay teg fi nga jaar. Mm-hmm. pour nit yi euh, pour nit ñi déglu la. Mm-hmm. nit ñi waxal waxu nit rek ñu déglu la. boo waxee waxu nit rek ñu bàyyi la xel. mais boo fi nekkee di wax ay waxu naxa saxan nag duñ la déglu. Mm-hmm. te nag mënoo ne ci kaw asamaan seeg ne jaaral fu ne demal sax ba toog ak yàlla. waxtaanal ak moom. Mm-hmm. mais boo wàccee ci suuf te waxoo nit ñi waxi nit nit ñi bala. nga humble bi sallallahu alayhi yàlla sax bañ na ko ba bi mu ñuy yónnee nit la ñu yónnee. Mm-hmm. mënoon nañoo yónnee malaaka bu ñëw ne eh gëm leen yàlla dañ koy gëm. mais dañoo wàcceel nit nit ki mel ni ñun ba noppi di ñu wax loo xamante ni bii tey. dañ koy dégg. du dañ comprendre mm-hmm. donc moom li war a wax mooy na wax ak nit ñi waxi nit rek. parce que défendre say argument soxlawut ngay wane fi nga jaar. foofu la ko nit dof woo nit dof li mu ko wax rek coow lépp li ko soxlawut ngay tudd la parce que nit dof voyagé na dem na fu ne. mais soxlawut muy ñëw di wax naan man maay nit dof naa fii jaar naa débat bi sax. comprendre débat bi li mu nekk wuyul ci loolu mais bul di ñëw teg Aliou dafa tàmm lii. <laughs> mës naa ko tàkkale benn bis benn émission bu ñu bokk. <laughs> comprendre mais c'est parce que. dama ko xam président da ngay xam nit quoi da ngay xam nit euh, ni muy waxee ak ni nga xamante ni moom lay kii ak yooyu maanaam. loolu masque la bu ñuy sol. pour nekk pour léegi ragal loola ne yaa napp la. Hmm. pour wan na nelaw ki nga jàkkaar loolu xamal ni kii du kii maanaam mooy. kii jóge Sorbonne ki jaar fii ki def lii sama ay sama bàjjan loolu c'est pas important quoi ngay ñëw di sa bàjjan bi mu la wooyee sa tante bi mu la kiiweeg bi mu la yóbboo fële. Hmm. bi nga defee loolu jaru ko. comprendre am na ñoo xamante ni bii ci diggante pàkk làmbaay bii la ñu xamee li ñuy xam te kenn mu dox seen maayen xam nañ liy xew ci dëkk bi comprendre àddina bi léegi nekkatut fële mi ngi fii ci sa loxo li si Lamine doo dox le monde au bout du maanaam mi ngi ci sa bii loo bëgg a xam-xam ko yaa mhm. fii laay toog benn waaye di ma wax japon la fa xew ba ma am xam-xam ci japon te ji rek laay seetaan loolu mën naa toog di la waxal ci japon lu baree baree bari mhm. seeni mbir mhm. et pourtant fii laa toog xam ko. déw ma Japon c'est que dafa am yu bari yoo xamante ne bi nga xam lépp. Hmm. soxlaatut nit ñi ngay wax lool loolu nekkatul mythe. Hmm. comprendre nit ñi voyagé nañ dem nañ fu ne. loolu jarte kii bu ñu lay wax waxal ci aali kalaj ji rek la ko nit dof wax waxal ci lii problème mu réew mi donc soxlawul ngay sol masque pour wax ak réew mi pour nit ñi ne yaa ah, non te gis nga doomu aadama bés bu demee ba yëg ni dafa am xam-xam la booba la ñàkk xam-xam comprendre ki nga xamante ni ki mooy ki xam mooy ki jàpp ni xamul. xamul dara. parce que saa yoo xëyee da ngaa war a jàng parce que su ma jàppee ni maa la gën a xam awma lu may jàng ci yaw mm-hmm. mais à chaque fois peut-être ma gis ci yow loo xamante ni lu ma lu newut ci man la ma jàngee ko ci yow. Mm-hmm. kon looloo tax déglu di am solo. Mm-hmm. parce que dañ lay wax ne la ku déglu dégg waaw. ku dégluwul doo dégg doo dégg. booy wax li nga xam dong ngay wax. waaye booy déglu. mën ngaa xam lu bari loo xamutoon. kon Aliou Sow. Euh, na xam ni fi ko nit dof di woo mooy nañ wax ci réew mi. mais soxla wut mu ñuy wax mooy kan. parce que moom intéressé wut sénégalais yi. li intéressé sénégalais yi mooy li ñuy wax ci réew mi loolu moo intéressé sénégalais yi mais pas. mu wax ñu ay jaar jaaram wa ilaa mu wut émission bu ñuy wax kii kan la mu wax ñu foofu ay jaar jaaram. ñi mu intéressé daal dem daal di koy seetaan mm. en tout cas euh, fi réew mi tollu moom wax dëgg yàlla nu ñu def ba euh, delloo siwaat lépp ca na meloon loolu la ñu gën a yittewoo jamono ji